ci njobaxtanul ragal yàlla kon alhadafu al asaas li sawmi huwa i'daadu al quluub li taqwa bi ixyaai alriqabati alzatiya lada al insaan al saa'im fa laysa al muraadu taadib al nafs lakin tarbiyataha ala al iman al xaalis bit bi gën a kawe jubluwaay bi gën a rëy ci li tax ñu farataal ci yow koor mooy waajal sab xol yar xolu doomu aadama ji ba mu àgg ci ragal yàlla ba mu àgg ci lu muy def lu ne seet yàlla li ngay def seet yàlla ndax lu baax la ba nga war koo def wala ndax lu bon la ba nga war koo bàyyi kooku xam-xama la koy jox waaye nag bi ñu ko xamee ba àggal ndax da nga def lu baax li ak ndax da nga bàyyi lu bon li kooku bu boobaa contrôle bi moom la koy jox muraataba xëglu sa diggante ak sa borom tabaraka wa taala moo lay tax a def la baax moo lay tax a bàyyi la bon te boole ko akub sellal kon nag koor day dundal bu fekkoon ne ay appareil nekk ci doomu aadama dañ naan appareil bi nga xam ne moo yor mbirum contrôler lu aju ci wàllu yàlla su nit ki bëgg a def mu ne ko seet ci yàlla day mel ne kon appareil boobu koor day ñëw yeesalaat ko defaraat ko ba mu teguwaat ci yoon su fekkee ne am na ayib yu ca nekk kon koor wax dëgg yàlla mbugal bakkan bi taxu koo jóg waaye yar bakkan bi ci jëmmi boppam moo ko tax a jóg wal islaamu laa yaquudu nnaasa ila taqwa bi salaasil lakin bi tarbiya maa al muraqabati alzatiya wa ictaai alxurriyati lil fard l'islam buy indi nit ci bëgg ko yóbbu ci taqwa biñ xëcc nit ñi yor yar di leen dóor ne leen tey ngeen ragal yàlla du noonu loolu du tax nit ci ragal yàlla de lim gëmul àggul ci xolam bi mënee su ko def nenn nenn ba mu àgg ci ci wàllu yàq mënee su ko dóor mënee su ko tëj mënee su ko teg benn mbugal ba mu gëm lu mu gëmut woon waaye nag yar xol bi jubbanti ko teg ko ci yoon loolu mooy tax mu dem ba àgg ci dem ba àgg ci yaru yar boo xam ne dana ko yóbbe taqwa loolu nag su sottee nit ki du tee dañ koy joxaale liberté am ci biir loolu maanaam forcé wuñ ko di ko wommat ci ay càll la li ko tey nga dem ci taqwa déedéet kon loolu daf ñuy daal di jox ne laajub hal hunaka alaamatun bayna al juu wa bayna tarbiyati ala taqwa ndax jëmmi xiif ci boppam dafa am yenn buum buumi jokkale yu dox digganteem ak ragal yàlla suñ borom tabaraka wa taala xiifu koor bi jullit bi di yendoo xiif yendoo mar yendoo bàyyi yiñ ko tere woon ba ngoon ndax loolu dafa am ak jokkaloo ndax daa am ay buum yoo xam ne yu dëgër la yu takk diggante coono bëccëg boobu yi ak taxaw guddi gi dinaa fi la ndax dafa am lu ko takkale ak ragal yàlla loolu tontu la mooy waaw kullu man taammal yajidu nafsahu anshata lil ibadati fi ramadan minhu fi gayrihi képp koo xam ne seetlu nga sa mbir da nga gis ne ci xeeti jaamu yàlla na ci nit ka di saware ci ramadan bokkul ak nam ci saware ci weer yi ci def loolu kenn ku ne boo xoolalee sa bopp gis lenn ci firikat yi dañuy wax ne loolu liñ tënk saytaane yee tax yenn ñi ne liñ ubbi bunt yi yee tax bunti àjjana yi ñii ni lee tax ñii ni lee tax waaye ala kulli xaal loolu lu am la ci yendu xiifal yàlla daal yendu koo maral am na yëg gu mu yëg ci xolam ci def aw yiw ak yëg gu mu yëg ci xolam ci wattandi ko aw ay goo xam ne du ko yëg ci weer yi ci def kon jokkaloo googu moom am na ci wàllu yëg-yëgu doomu aadama loolu moo tax dañuy wax ne ashibau aduwun min al aada ab raggaay kenn la ci noon yi biir bu feesee dell dell dell borom na yëg ne ab noona ngoog boo xam ne day dox diggante jaam bi ak jaamu yàlla day dox sax diggante jaam bi ak xel mu ubbiku sax ba mën a ba mën a ëmb xam-xam moo tax dañuy wax ne al bitna tudhibul fitna al bitna tudhibul fitna biir bu fees day yóbbu xel mu neex biir bu fees dell day yóbbu xel mu neex kenn ci asalafu saalix day wax ne man shamia min altaam ajaza an alqiyaam loolu defe naa ne lu lu doomu aadama yëg la ki nga xam ne lekk naa lekk lekk ba regg du mën a joxe ay naafilaam na mu ko war a joxe loolu mooy li wér moom ci saa si dana ne ah man de faaw ma toog féexlu ba ci kanam ndax diisaay bi damay xaar ba ci kanam ma door a julli su ko defee diggante ba muy xaar dana fekk jullit yi moom julli nañ ban jeexal la ca des mooy ndax moom dana jóg julli moom ci boppam wala du ko def su tëddee nelaw du jóg julli su tëdd nelaw rek moo fay sës ginnaaw biir bi xas na fees kon man shabia min altaam ajaza an il qiyaam yani an qiyaam il layl loolu genn wet rek la ci koor noo xamee ne mën na ko yóbbe nit ci taqwa ñaareelu wet gi ci des ñaareelu wet gi ci des mooy yow jullit bi laajal sa bopp laajal sa bopp laaj yi ndax ci bëccëgu weeru koor nga xiif xiif bu metti mar itam mar bu metti ba àgg ci sa baat foddoos nga mën a dugg fi béréb boo xam ne jenn doomu aadama nekku fa yoo xam ne soo lekkee wala nga naan dana génn ci mbooloo mi ne ah man kat gis naa diw Touré wala diw Cissé dugg na ci béréb lekk na fa naan na fa yooyu yëpp mu leer la ne amut ba noppi nga nekk ci béréb yu xóot yooyu xiif bi di la bëgg a rey mar wi di la bëgg a rey te lekkoo naanoo lan moo la ko tee def ku la te ku la tee lekk wala nga naan ci diggante boobu li wér te wér moo di lala tee lekk teelaa naan moo xam yëg nga ko wala yëgoo ko waaye mooy ak ngëm goo xam ne gëm nga ne allahu subhanahu wa taala muttaliun alayk yaraaka wa yasmauk gëm googu nekk ci biir xol bi nga xam ne da ngaa gëm ne yàllaa ngi lay gis li ngay def mi ngi koy xam li ci sa xel mi xalaat sax mi ngi koy xam kon loolu moo dox sa diggante ak ba nga duggee ca ruq ya xiif ba ak marwa di la bëgg a rey taxul nga lekk taxul nga naan ida xalawta ida ma xalawta dahra yowman fala taqul xalawtu walakin qul calaya raqibu wala taxsabanna allaha yacfulu saacatan wala annama tuxfa calayhi yaxiibu wala annama tuxfi calayhi yaxiibu moo tax waxkat ba daf ne boo wéetee ba wéet yow dong bul ne mukk wéet naa neel la may wéet wéet am na ku may fuglu koo xam ne mi ngi jàkkaarloog man di ma gis mi ngi xam li ma nekk di ma gis bul jàpp mukk ne yàlla am na wenn waxtu woo xam ne bu jotee dana am xeetu càggante wu ko gaar ba du la yëg wala du la gis lépp loo xam ne da nga koy nëbb yàlla moo feeñal ko ñooyam ci moom kon pas-pas boobu jaam bi gëm mu nekk ci xolam ci jamono yooyu moo ko tee lekk kon xeetu yar ci ngëm yàlla ngoog xeetu yar a ngoog ci taqwa ndax yaa ngi wattandiku lekk wala nga wattandiku naan ci béréb boo xam ne yow doo nga fa nekk kon ñi ngi lay jàngal nan la ñuy bàyyee xel yàlla ñaareelu laaj bi soo dee jàpp bëccëgu koor yow jullit bi di jàpp di bëgg a julli buñ xoolee dan lay gis gallaxndiku sax boo koy def yaa ngi wattandiku sa kem kàttan ak dox genn genn dox rek jàll ci sa bëli xatratun waxida min al ma doo bëgg mu jàll ci sa bëli waaw lu tax ndax genn dox bu jàlloon wala sax boo tibboon fankoon benn yoon ci ndox mi cheikh galax ndi ko ba noppi wan na ko mu jàll ndax ma sàmba wala ma demba dañ koy yëg déedéet amul keneen ku ko yëg koo ko waxul ku nekk du ko yëg waaye li nga gëm ne li nga gëm ne sunu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne amul dara lu làqu ci moom moo xam ci asamaan ya la wala ca suuf ya la amul lenn lu làqu ci sunu borom tabaraka wa taala kon yàlla moomu nga gëmaale ne ak genn doxug ndox bu jaaree ci sa bëli gi àgg ci biir kon moom xam na doxug ndox boobu kon loolu moo la teenaan kon noonu lañ lay yare ndànk ndànk ci ngay ragal yàlla di bàyyi yàlla xel ci say jëf noonu la la koor di jàppe ba yóbbu la ci taqwa kon loolu mooy laallakum tattaquun waaw soxna si nekk ci waañam xiif mar ñi nattoo ko mu taxaw gannaaw takkusaan xiif beeg mar bi jàpp ko ñam yi wër ko fu nekk di saxar xet gi di ko xeeñ muy xool di gis alwaan yeeg couleur yi mu di ko xeeñ léeg-léeg sax mu bëgg a mos xorom coppati ci catul baaraamam sex ko ci catul làmmiñam gaaw burusu ko yàbbi ko ngir ragal ne sax caf ko googu mën naa jàll ci ak bëleem kon soxna soosu kan moo tax muy def loolu lu ko tee tibb ñaari tibb sex ci ñam yu neex yi ne cell bu wëlbatikoo bu nit ñi dog mu ñëw ferenk lay dog lu ko tee jël ci naan yu neex yi mu préparé ba teg ko mar wi di ko bëgg a rey mu guux ci ñaari guux rek ah dindi ci aw maram mu mbooloo mi toogee mu ñëw toog ci seen biir ab daram du yàqu dara du xew kon la tee mu def loola muy ëg yëg bu nekk ci biir xol bi boo xam ne koora nga koy yar ngir mu yëg ne moom kat bu taxawoon foo xam ne ma sàmba nekk fa ma demba nekk fa it am na ku koy gis koo xam ne moo di suñ borom tabaraka wa taala loolu moo tax jamono yam guuxee wala jamono yam tegee di mos xorom teg ko ci catu làmmiñ bi mu gaaw yàbbi ko ngir bañ loolu àgg ci luy yàq koor kon loolu mooy jëfi ragal yàlla loolu la koor bi yóbboo nit ki ci ragal yàlla qad yastabiddu aljuucu bi wa yahuddu nii damaun wa yuxfitu fi madaaya kifaaxu lakin taqwa allahi yaxfisu himmati wa yashuddu min azri ladayka salaaxu mën ngaa toog ba xiif bi àgg ak yow foo xam ne wax dëgg yàlla day mel na jéggi na dayoo léeg-léeg nga toog ba mar wi àgg foo xam ne day dem ba àgg fu mar di àgg nga wéet ba àgg foo xam ne yow dong yaa fi nekk ci li ngay gis ci say bët waaye lu la tee dog bu boobaa lu tee nga lekk ba regg naan ba màndi bu ngoon jotee nga génn ci mbooloo mi frank laayo di dog ne ñëpp lakin taqwallahi kooku mooy ragal sunu borom tabaraka wa taala yaxfisu himmati kooku mooy ki nga xam ne jamono yu nekk soo fàttalikoo liñ la dig ci koor ak li lay xaar duutoo yëg marwa duutoo yëg xiif ba doo gis ci àdduna ak li ci biiram itam lu la jaral genn doxu ndox jaar ci sa bëli bi ba jàll kon laallakum tattaquun noonu la la koor di jàppe ba su noppee ci yow rek li suñ borom tabaraka wa taala wax mu di laallakum tattaquun day ñëw te koor yemut ci yar la rek ba nga mën a fuglu sa digganteeg sa borom waaye day yaraale yu bari day yar sax jikko yu rafet loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wax ci benn xadis boo xam ne Buxaari solo na ko mu ne man lam yada qawla zuuri wal amala bihi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharaaba képp koo xam ne bàyyi woo waxi caaxaan waxi neen ak jëf ay neen jëf ju amul benn njëriñ àllaaxira wax ju amul benn njëriñ àllaaxira ku ko bàyyiwul nee na yàlla amul soxla ci nga bàyyi saw ñam ak nga bàyyi sag naan yàlla amul soxla kon nga xam ne koor xiif ak mar taxu koo jóg mi ngi lay yaral foofu say jikko ba tey nee na laysa siyaamu min altaami wa sharaab innama siyaamu min allaxwi wa rafat koor nee na rek du mooy lekk ak naan waaye koor mooy nga bàyyi lépp loo xam ne caaxaan la kooku ibnu xusayma ak ibnu xibbaan ak xaakim génne nañ ko ci xadis boo xam ne mi ngi ci sart muslim kon ngir sa koor wér àgg ci koor gi nga xam ne moom lañ sàkku koor gi nga xam ne moo lay yóbbu ci laallakum tattaquun faw bu sa biir wooree ba ndox ak lekk du ci dugg itam da nga fexe ba saw làmmiñ woor ba mucc ci fen mucc ci jëw mucc ci rambaaj nga wooral say nopp itam ci déglu lépp loo xam ne ay caaxaan la wala am po ñu bare bari dañuy woor yendoo déglu ay way wala yaasu billah caaxaan la lu jëmut fenn la lu amutug yàlla àllaaxira la kenn amu ci benn werante xanaa li ngeen di werante kay mooy ñenn ñi naan leen dagan nañ ñi def naan leen daganut waaye ku nekk xam na ne moom laxaw la ah kon faaw say cër dañuy woor ginnaaw wooral nga sa biir ba lekk ak naan itam dugg kon daal koor ndekete wenn weer la woo xam ne bu dikkee dañuy woote benn cër dañuy woor ginnaaw wooral nga sa biir ba lekk ak naan itam dugg kon daal koor ndekete wenn weer la woo xam ne bu dikkee dañuy woote benn tadrib am dañuy woo jullit yépp ñu del siwaat ci tàggatuwaat nag mu di ragal yàlla mi nga xam ne moo tax ñu bind leen bëgg ngeen jaamu yàlla ragal ko xëy na ay càggante mën naa am su fukki weer ak benn jàllee waaye nag wenn weer wi su dikkee ñu delloosi leen ci seen borom tabaraka wa taala ngeen teguwaat ci laallakum tattaquun jooju ñu di leen yar ndànk-ndànk ba delsiwaat ci xalaat looy def lu ne bàyyi ci xel yàlla nga wëlbatiku bàyyi xel ci takk saw làmmiñ ba doo wax lu ñaaw takk say cër ba doo jëf lu ñaaw saxoo ko bëccëgu weer wu mat sëkk bu guddee nga fanaanee jaamu yàlla kon kooku daal amaliyatu tadrib la wa tahil pour former nit ki formation bu bees la ngir mu génn nag tàmbaliwaat liggéey bi bu fekkee nag kooru xiif rek la ak mar kooku moom wax dëgg doonut koor guy indi aw yiw doonut koor guy jañ aw ay doonut koor guy indi yiw doonut koor guy jañ aw ay moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wax ci benn xadis ne rubba saa'imin xadduhu min siyaamihi aljuu wal atash wa rubba qaa'imin xadduhu min qiyaamihi assahar bari aana kuy woor day nee na te sab cër ci koor mooy xiif ak mar dëgg yàlla ñàkk na solo lool boobu cër bari aana kuy taxaw itam nee na di julli di naafila te ab cëram lam amee ca naafilaam googu mooy ñàkk nelaw rek xadis boobu nasaay ak ibnu maaja ak ibnu xusayma ak ibnu xibaan ak xaakim génne nañ ko ala chartil buxaari ba tey koor ci boppam day yar bakkanu doomu aadama ci tabe ak sori lépp loo xam ne ak nay la faqad kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ajwada annaas wa kaana ajwadu ma yakunu fi ramadan comme ni mu saxee ci xadisu buxaari yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon a tabe ci ñu yàlla bind doomu aadama yi waaye ci kañ la daan gën a tabe moom yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ci weeru koor ni mu ci daan tabee daawuni tabee ci wenn weer kon daal koor ab yar la ak jàngalaat la ci ngir say jëf yépp nga bàyyi ci xel yàlla koor ak yar nit ki ci dëggu la yar nit ki ci mu fegu ci tooñ ci làmmiñam ak ci ay cëram yar ko ci ay jikko yu rafet yar ko ci muñ ndax bu leen fàtte ne weeru weeru muñ la weeru muñ la muñ goo xam ne day ànd ak quwwa day joxe kattan biir yi mën naa xiif waaye force iman ba mooy jox nit ka doole bu leen fàtte ne xeex yu bari ay combat yu bari yu am ci lislaam ay xasawaat ci koor la am badr ci koor la am te kooku amul benn werante de maaraka faasila lañ koy tudde maanaam xas wala boo xam ne dafa tàqale diggante kéefar ak ak ngëm yàlla yowmal furqaan la tudd ak qaadisiya ci maarik fasile yi ci la bokk ci la ci jamonoy saxaaba yi jamonoy Omar ibn al-Khattab ci lañ note ci la nguuru Faris daanoo ba faw muy Perse yi buñ fàtte ay mu jaalut bi nga xam ne Salaaxuddin al-Ayubi moom la jiite woon gannaaw boo xamee ne baytul maqdis yàgg na ci loxoy nasaraan yi diir bu yàgg-yàgg ci xeex boobu di ay nu jaaloot ci lañ ko delloosee xeex yooyu yëpp ci biir ramadan la xeex bu yàggut bii fi am sax 73 ci diggante égyptiens yi ak israël yi te fekk xeex ya ko daan jiitu dañ leen daan gaña gañaa yu méttee métti ah ngir seeni caaxaan ak seenu ñàkk solo char de combat yoo xam ne bu nekk ci biir géew bi di xeex photo yi waykat yu jigéen yaa ngi ñu taf soldat bi di ko xool di déglu way bi di xool photo bi taxaw ci maydaan bi di xeex kooku daw dana ko yomb waaye biñ dikkee ba at moomu nag ñu ne dañuy tuubaat jéem a delluwaat ci yàlla muy seen maaraka boobu ñuy wax maarakatu ramadan muy soixante treize sunu borom tabaraka wa taala daf leen a daal di dimbali ndimbal lu gaaw ci boobu ci lañ mas a gañe Israël ci taarix bu bees bii nu nekk di ko dund te loolu dañ koo essayé woon rek ci benn weeru koor kon jëmmi weer wi ci boppam force la boo xam ne daf koy jox jullit yi daf leen di doole doole weer la boo xam ne daal kon day tàggate ci muñ ba tey di tàggate ci tabe di tàggate it nag ci jullit bi yëg ña ca des daf lay tàggat ci nga yëg sa mbokki jullit yi ci des ndax su loolu amul rek ki woomal moom day defee ne xéewal moom ci la ñëpp nekk xéewal ci la ñëpp nekk waaye jamono yoo xam ne waa ji li muy woomal woomal ak li muy barile barile ak li mu xéewal yi wër wër weer dana dikk woo xam ne saa bu xëyee moo ko nga xam ne day xëy yor potam di yalwaan ñooyam yorut lu mu lekk maanaam bu ko yoree du lekk du lekk du naan ba jant bi so su xalaatee ñi nga xam ne ci lii lañ dëkk kon kooku al ixsaas bil axarin dana daal di am dana yëg ñu ci des kon daal lay résultat wax ji mooy lan moo di ne wooru jaam bi nga xam ne ab jullit la su fekkee ne kooram wér na jaar ca na ko asalafu saalix daan woore kon faw wu koor googu dana ko indil laallakum tattaquun ragal yàlla gi dana ko ko indil su ko andee ci loolu ngay xamee ne yàlla mi la doon gis ci biir koor gi ba tax nga gëm ne mi ngi lay gis ba soo wéetee da nga rus a lekk da nga rus a naan ngir ne moo ngi lay gis kon da nga génn ci koor gi yëg ne yàlla moomee nga ragaloon kat moom moo araamal lii mu araamal lii mu digle it moo ko digle kon da ngay génn ko weeru koor fekk pare nga ngir bàyyi lépp loo xam ne luñ xaraamal la pare nga ngir lépp loo xam ne luñ santaane la nga def ci sa kem kattan da nga gëm ne sa borom tabaraka wa taala mi nga doon gis ba tax ngay góorgóorlu ci farata yi xëy na sax daawoo julli julli mbooloo lu jiitu koor waaye weeru koor ñëw ngay ñëw di julli si ci mbooloo mi di ñëw di teewe si julli naafila yi da nga gëm ne yàlla moomu taxoon ngay def loolu bu koor gi jàllee it yàlla moomu mi ngi fi te la mu bëgg woon mi ngi koy bëggee ni mu ko bëggee woon su ko defee kooku dana la jural taqwaa googu daf koy indi kon nag ak yëg yi na ngoog goo xam ne jullit bi day génn ci koor yor beneen préparation bu bees soppiku mel weneen melokaan gis weneen gisiin di dund weneen dundiin fas yéenee nag continuer ca loola ba su demee ba ak doye di nar a dikk beneen ramadaan fekkaat ko fa yeesalaat ko mu continuer ci biir loolu ci lay ci lay saxoo ci taqwa melokaan woowu ak yëg googu nag mu di bàyyi xel gi lépp looy def nga bàyyi ci xel yàlla ndax lu dagal wala lu daganut mooy yóbbu jullit bi ba for ba amal ci moom al imaamul aadil muy njiit lu maandu ci loolu lay jóg ci lay demee ba ndaw loo xam ne dafa sosu ci jaamu yàlla looloo koy indi ci lay demee ba nit ki mën a wéet foo xam ne moom boromam dong moo fa nekk tudd yàlla fàttaliku ko jooy moom dong ca ruqam boobee ci lay demee ba fit nay jigéen gaaral ko maa nga ca xadiisu juróom-ñaareel ñi juróom-ñaar ñi nga xam ne duñ am ker yowmal qiyaam yàlla dana leen keral ci bis bi nga xamee ne kenn amul ker jand ker amul gudul keru yàlla ga ñooñu li leen di indi mooy taqwa dem ba ndaw soo xam ne zaatu mansibin wa jamaal koo xam ne ndaw su taaru yëmut ca loolu nekk itam nag boroom palaas wéet ak moom woo ko ci boppam mu ne ko inni axaafullah damaa ragal yàlla kon loolu ci boppam koor mën na la koo yóbbi mën na koo indi koor googu mooy dem ba def nit ki su dee sarxe wala muy def dara ngir yàlla koor googu mooy dem ba ab xale bu ndaw bu tuuti bu toll ci xellu yaayam di ko digal mu def li ñuy wax xis muy njar lam doon jaay boole cam ndox ne ko Omar gisunu mu ne ko su fekkee ne Omar gisunu it boroom Omar a ngi nuy gis kon koor googu mooy dem ba yóbbee ba indi nit ki farme ko ci taqwa ba mën a mel melokaan wu mel noonu kon daal yow mbokkum jullit nii su fekkee ne bëgg ngaa xam ndax sa koor gii ah ak sa taxawaay bi nga doon woor sa taxawaay bi nga doon taxaw di ko julli koor gi nga doon war bëccëg di mar di xiif góor-góorlu nga ndax ba nii nga doon bàyyeelu xaraam ci bëccëg bi ak ci guddi gi yi daganoon ci yow yàlla jekki-jekki xaraamal ko ci yow nga di ko bàyyi xir gi nga xiroon ci topp yàlla yi ndax wér na wala wérut xoolal ni ngay mel gannaaw bu ramadan jàlle mooy nattukaay bi su fekkee ne day fekk nga ne yow jullit bi saw doxiin soppiku na sa dund ci boppam wëlbatiku na jëm ci yàlla buddiku nga bàyyi lépp loo xam ne ay mooy yàlla ak i caaxaan ak i bon bon la lépp loo xam ne santaane bi yàlla la yaa ngi ciy def lépp loo xam ne loo mën la xool jamono yoo xam ne romb nga wala mu romb la koo xam ne dafa ñàkk ba sonn ban yëgiin ngay yëg jirim bi nga dëkkal wala jigéen ji nga dëkkal borom këram faatu te amul ku ko yor muy miskiina nekk arma la ban yëg nga yëg sa diggante ak moom moo xam am nga loo leen jox wala amoo leen loo leen jox waaye yëg gi ngay yëg sa diggante jullit yu ñàkk yi dox ci biir société bi ban yëgiin ngay yëg nattukaay la ngir nga xam lan la koor def ci yow te kat kii sarxe ci boppam di jël di joxe ci weeru koor bu leen defee daa jublu rek ne nit ñi daf leen di rafetal jëme ci ñoom salaf daawuñu xalaate noonu al imam amir ash-sha'bi da doon wax ne man lam yara nafsahu ila sawabi sadaqa axwaja min alfaqiri ila sadaqatihi faqad abtala sadaqatahu wa daraba biha wajha koo xam ne yëgoo ne yow li ngay sarxe nii nga aajowoo yool bi yoolub sarax si ngay sarxe ni nga ko aajowoo li feeg demoo ba yëg ne moo gën a tar faqiir bi ni mu aajowoo li nga koy jox nee na bu boobaa sarxe goo dangaa war a dem ba sarxe gi ngay sarxe yool bañ la ci dig na nga koy bëggee mooy gën a tar miskin mii nga tàllal téeméer bi wala ñaar téeméer yi di ko ko jox na mu koy bëggee kon jëmmi yëg googu ci boppam faw mu dund Aïcha radiallahu taala anha dañu wax ne benn bis alal yu bari dikkal na ko xam ngeen ne moom ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu fi mujj ci la bokk ñu wax ne miatu alf dirham ci benn bis dikkal na ko mu jël ko sarxe ko ba mu jeex séddale ko ba mu jeex tàkk jaariye bi ne ko law ab tayti lana shay'an benn xale bu jigéen bu ne ci kër gi ne ko waaw ah soo nu fi bàyyi loon dara de dana baax mu ne ko law zakkartini la fa'altu soo ma ko fàttali woon lu jiitu loolu kon ma def ko xoolal xër gi ci def ci yoonu yàlla ba fàtte loola sax sa bopp ak yëga ngoog goo xam ne jullit bi war naa jiima yar boppam ci yëgiin woowu ba yëg mbokki jullitam yi nekk di dund ci biir société bi te sonn kon su fekkee ne xool nga sa koor xool saw melokaan xool sa dund mu dëppoo ak melokaanu ñii wala mu jege ko wala sax mu jaar ci yoon woowu jëm ca kon xamal ne kon doon nga woor sa koor yemut ci xiif ak mar alhamdulillah waaye nag su fekkee ne génn nga weeru koor wala iyaatu billah xool gis ne bon bon ya nga nekkoon ca nga nekk ba tey sa xol ba tilimoon fees del ak kiñaan fees del ak mbañeel fees del ak ay pexe yoo xam ne nga koy fexeel jullit yi ak lislaam su fekkee noonu nga mel ba tey xool gis ne na nga gàttañ loo woon ci jaamu yàlla yi dem gi nga daan dem ci jàkka ji muy fees di fa julli julli farata ya di taxaw di julli gulli guddi sa julli naafila su fekkee ne yooya ak wattandiku nga nga daan wattandiku jëw ci bëccëgu koor di wattandiku naxe di wattandiku carte su fekkee ne koor gi dafa jàll nga wëlbatiku delluwaat yooyu yépp nga dellu ca melaat na nga meloon di gàttañ luwaat ca wàllu jaamu yàlla ya di jëw bu dee da ngay jaayee ko jënd ngay naxe dellu ca carte ga ak PMI ba fexe lépp loo xam ne mën nga koo fexe ci fexe bon bon nga di ko def àgg sax nag ci xeex sunna ci boppam loolu danañ ko ci dugal su fekkee ne yaa ngi jafe-jafe jooju kon fàtte nga ne sa koor jëriñu la li tax jëriñu la mooy fàtte nga ne yàlla ma la doon gis nga gëmoo nit ne gis na la ba ba nga wéetee di jàpp yow dong nga doon wattandiku genn dox jàll ci sa bëli kon fàtte nga ne yàlla moomee meloon noonee ci ramadan mooy yàlla mii fi nekk ci shawal moo fi nekk ci zul qaada moo fi nekk ci zul xijja moo fi nekk itam ci mboolem weeri at mi kon jullit bi ci jëmmi boppam su fekkee ne noonu law melokaana mel wala iyaasu billah kon woowu weer génn na ñàkk na ko wala iyaasu billah la fa des mooy xanaa di xaaraat weneen weer ndax yàlla baaxe ko weer woo xam ne kenn xamut fu mu koy fekk ndax kenn xamut fan la la ramadan beneen di fekk ku ramadan dugg ku nekk da ngaa war a jàpp ne weeru koor wi mooy weer wi ngi mujj woor jàpp ne occasion la boo xam ne loo mën lu nekk ci xeeti jëfin ci xeeti yiw war nga koo def balaa dem ndax amaana mu dem te bu ëllëgee du la fi fekkaat kon weeru koor loolu lay def ci jullit bi noo ngi ñaan sun borom tabaraka wa taala mu defal nu ak taqwa kon allahuma waffiqna li siyaami ramadan wa qiyaami waqbalna fihi wa taqabalhu minna اللهم اجعلنا من الفائزين فيه اللهم اختمه لنا بالقبول والغفران اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها عاقبتنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها عملنا